C'est un accident où il y a eu 49 victimes. 19 sont sur le coup. 3 ont été transférés vers Saint-Louis, des blessés ont été transférés vers Les autres sont pris en charge ici, à Louga. L'hélicoptère a pu récupérer les malades qui, après un diagnostic, les que le transfert à Dakar était nécessaire. Des mesures prises, des mesures qui sont en cours d'application et l'État les mettra en œuvre avec toute la rigueur requise, mais bien sûr, nous continuerons d'échanger et de discuter avec les chauffeurs et transporteurs pour que l'intérêt général soit au-dessus des intérêts particuliers. Nous avons remarqué aujourd'hui, au vu de l'enquête préliminaire, que ce véhicule a passé trois fois la visite technique. Ce véhicule vient d'avoir sa visite technique. C'est vrai qu'il y a une responsabilité des services de l'État. De ce point de vue, l'État aussi prendra toutes ses responsabilités pour que nos intérêts personnels ne soient mis au-dessus de l'intérêt général. juróom-ñeent ñoo nekkoon ci ñaari oto yi muy benn camion ak yeneen kaar yi nga xam ne dañ leen di dëppee kaaru Njaga Njaay kaar boobu yi nit ak ñaar la waroon a jël waaye fekk nañu kaar bi am na. ju ñeent fukki nit ak juróom-ñaar muy fukki nit ak juróom semaine bii passé rek bi ñu demee si kilo ci conseil interministériel bi neewoon nañu dinañ jël sunuy matukaay pour que modification soppite yi nga xam ne ñu ngi koy indi ci oto yi pour mën cee def ay nit ñu gën a bari wala def ci ay bagages yu gën a bari loolu dañ koy dakkal. ñu ngi woon ci mesure bi di ko appliquer di waxtaan ak ñoom nattu bi dalaat ci kaw réew mi loolu li muy wane mooy la nga xam ne dañ ko defoon ngir aar askan wi lu jaadu la jox nañu aussi instruction ministère de la santé professeur yaa ngi fii pour que lu hôpital bi soxla pour ñi fi nekk ñu mën leen faj ndax ni ñuy ñëwee dafay diis ci hôpital bi ndax boo toogee rek jotandoo yi nit ak juróom hôpital bi prévoiru koon dafay metti incha allah am na équipement yoo xam ne dina jógee dakaar yenn yi ñëw na yenn yi dina ñëw au fur et mesure loolu yëpp dafay wane ni gouvernement bi di gérer crise doonte lu ko bett la waaye am nañu automatisme am nañu aussi Pastef bi nga xam ni lépp lu dal ci réew mi dinañu fexe ba mettit bi wàññeeku lool maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf